sama gaay yi bëgg ziar Sawdat suñu gaynde yu jigéen yi démb dañ doon dañ doon dañ doon football match amical contre Thaïlande bi ci goudi donc euh, elles ont fait match nul 1-1 un bi partout donc bi bi ki ko dugal Awa jaxete la donc euh, gannaaw bi nga xamante dañ leen éliminé ci barrage euh, barrage li nga xamante moy coupe du monde féminine xayta door leen ci week-end bi passé aujourd'hui ils ont elles ont fait match nul 1 1 un bi partout donc ki nga eh, le numéro 10 de cette équipe nationale féminine donc euh, premier but au Sénégal hors Afrique donc mu nek lu mais gars dama wax euh, vidéo dama wax dem abonné chaîne di ah, muy def actualité football Sénégal dem leen abonné vraiment may ko également euh, Paris Foot dama leen wax lien ci ci euh, code promo Diego 22 donc euh, ngeen def première dépôt avec Orange Money en tout cas suñu vraiment ni représenter Sénégal ci ci bitim et voilà quoi dañ bravo et croise encore une fois benen yoon ci lay dakh ñu dem dem ci coupe du monde bi nañ donc

oui les di like wéy leen di commenter également te di partager vidéo yi bu len ko fàtte nak dem len ngeen inscrire avec son code promo Diego 22 jaa